bi ma àndaloon yónnentu sénégalais bi boolewu ci sama xereñte te mu jógee ci yàlla nangulu nangulul xereñu yàlla ci man waaye ñekk ko joxoon ma dem ci ñoom ni leen yónni leen ma. mais Abdoul Aziz euh, sénégalais yi. waaw xam nañ la. Mhm. ci sa xam-xam. Mhm. ñu bëri naw nañ la ci. mais politiquement. waaw sur le terrain politique. waaw fa lañ jàppee ne euh, fa nga xaw nekk en retard. naa la wax benn ak ñeneen ñi. naa la wax benn affaire gis nga su ma àndoon ak yow ngay journaliste du xam nañ la. Mhm. foo romb ñu ni ah kii du Mamadou Awa bu 7TV ñu ni waaw ñu ni ah waaye Abdoul Aziz Diop la àndal de <laughs> amul gis nga tey buñ doon wër Sénégal man ak yow amul fu ñuy taxaw te doo gis ñaari simili yu ñu dox bu góor wala jigéen mag ndaw ni ma ah kii du Abdoul Aziz gis nga ba ci bitim réew man maa doon dox ci marche ci mbedd Strasbourg booba sax lumière bi setee un peu tamisé xaw a daje naa fa ak ñaari sénégalais yoo xam ne nii ñoo ni ma kii du Abdoul Aziz addina ba àddina wër ngër këpp fu sénégalais di jëngu su ma fa taxawee ñaari simili jàpp juróomi simili yàlla dana ma wane leen ku ma ni kii du Aziz yàgg naa laa seetaan nangam nangam nangam. gis nga loolu dafa mel ni suuf ci réewum Sénégal xam loolu nu mu tudd. Mm-hmm. base nationale lu tudd. mooy tax a gagné élection présidentielle mooy tax a gagné xam nan la ñuy gagné élection présidentielle dangay am base nationale nga janook sa peuple. teg ci loxoom lu tax mu wóolu la jiital la xam na la ñuy gagné nan la ñuy gagné élection locale. Mhm. ministre yi nekk ci gouvernement bi ñooy gagné élection locale ndax ñoom ñoo yor koom gu war nañ ci mën a euh, wa war nañ ci mën a dalal xelu askan bi ba gox goxaan yi ñu dëkk ñu gañee élection. locale xam nga kan mooy gagné élection législative. Mhm. premier ministre mooy gagné élection législative. sur la base moo tax moo sur la base sur la base du bilan du président mais porté par le premier ministre qui est le chef de l'administration. Mhm. moo tax ba ñu demee élection euh, législative bu deux mille vingt deux sunu sunu ñu ñu ñàkk ba ci quarante deux ba quarante trois députés ñu nërmeelu ko. Mhm. lu tax. parce que booba amuñu premier ministre. bu ñu amoon premier ministre nga xam ne ni il répond de la politique du gouvernement di chef de l'administration moom mooy def campagne électorale na nga xam ni ni moom la Boun Mohamed Dionne hmm. defoon en 2017 campagne législative il était très présent moom moo gagné doon wax que ne il était là premier ministre mooy gagné législative hmm. ministres ñooy gagné local majorité nationale moom mooy gagné présidentielle man base nationale laa am